keroog ak Mbàkke uh-huh. ci ban registre nga koy dugal euh, li fa xew violence laa koy teg parce que xam nga lu tax mhm. parce que euh, ñoom dañoo mere état dañoo mere état état boo ko mere lenn nga war a def mooy bàyyi ba voté jot mhm. nga wote contre ko yonent bi sallallahu alayhi wa man waliya waalin fa raa minhu shay'an min ma'siyatillahi falyakrah maa ya'ti min ma'siyatillahi wala yanzi'anna yadan min taa dafa ne képp koo xam ni dafa am ku la gouverner ngay gis loo xam ni si du noonu mm-hmm. ci mooy yàlla la ci yàq la maanaam yow boo ko ca topp te la naqari waaye nag bul révolter mukk bul attaquer kon résistance bi Ousmane ko di woote yooyu yëpp jaru ko. na xaar ba élection jot. waxuma jaru ko sax l'islam da ko tere. da ko tere parce que booy xool. yañ yàq ca Touba yëpp ay fu jàmbur la. Mm-hmm. Sonatel baag dem yàq ay bitigu jàmbur loo xam boo demee ñoo xam am na ñoo xam ne boo demee ñoom li leen naqari ba ñuy yàqati sax boo demee ñoom loolee leen naqari bu wala bu fekkente ni dañoo ciblé li li nga xam ne état ko moom kon yàq nañ loo xam ne si ñoom dañoo bëgg pour defar Sénégal. ba pare yàq loo xam ne réew mee ko moom. mais politique bi tax ñu bëri sib ko xajale bi muy xajale aussi ci la bokk tey ji boo seetloo da nga gis benn famille religieuse ñiy jàppale kii ñi jàppale kii ba ci li xewoon Touba keroog am na ci ñoo xam ne Ousmane Sonko lañ bokk te Mbàkke la ñuy wuyoo loolu tamit tax na ba ñu bëri xaw a xeeb tuuti ñi ñi politique. léegi nag loolu nag bokk da nga naan loolu bokk na ci li nga xam ne si mooy mooy bonoon politique. Mhm. parce que politique politique boo koy xool mooy doxalin nan ngay ban politique ngay doxalee maanaam réew mi boo ci jotee ban politique ngay doxal pour mën a jot ci réew mi mais bu fekkente ni nag euh, da nga koo da nga dugal ci violence parce que ñoom li bu ñoom par exemple tey jii bu ñu àndandoo génn toj ay toj ay ay ay bitik mm-hmm. toj ay supermarché toj ay station buñ ko defee dañ na jàpp ñoom gañe nañ Macky Sall mm-hmm. te lañ yàq ay yëfu jàmbur lañ yàq toj nañ même bu fekkente ni dañoo dem dañoo dem police gendarmerie tojati foofu yëpp dem foofu yëpp def ko ba pare daw ba tey seen alal alalu réew mi lañ yàq kon képp ku def loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni képp koo xam ni si dañoo fal ab président de la république ba pare bu ñu ko bu ñu ko falee mu am ñu jóg taxaw pour bëgg a buuxanteeg moom foofu kooku nañ nañ dal ci